waaw sunu papa la di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla ñuy jóge tey ci la ñuy dellu moo ñu indi moo ñu yóbbu pour keneen di wax daal vraiment tey am nañu gis ñun ñëpp am lu làmb tey ku gis li xam ni làmb rek a mën a boole tey espoir rek mooy boole te loolu dëgg du yàgg waaw di ñaan yàlla yàlla na ko yor yóbbu àjjana yàlla yàlla na ko yàlla def waaw yàlla ko yàlla moo ñuy conseillé liñ mën mooy topp ci ginnaawam di ko ñaan yàlla may ko xolu muñ à part li des moom moom xam na kilifa la avant papaam sax di dem responsable la kon defe naa ne ñun duñ ko wax ne

bi wax ne xol bu mu amoon moom rek moo ko am ci mbir. wax ne Double Less jul julit ko mun naa ko séddale lu tax ma wax loolu. dañu nekk en réunion. ñuy waxtaan waxtaan bu heure bi jot ku ne taxaw leen. ma ne ko lan la Less mu ne ma waxtu bi jot na na gars yi dem jul ñu a jul dem jul. ci jàpp nañu dem jàpp. kon ku gëm yàlla rek. yaakaar naa ne moom mun a def. <laughs> te moom ci boppam. Less. Euh, ànd na ak moom Abidjan ànd na ak moom États-Unis bi may ànd ak moom Abidjan euh, drapeau Sénégal la ñu yóbbu dem di entraîner man ak moom di entraîner bi ma nekkoon da nga sonn dama yow lii la loolu nga sonn di continuer entraîner bi ma ñëwee jógee foofu ma tënk ko ci làmb ji moo ma tënk ko ci làmb ji génn mu ne ma yow saa saay nga jàpp si ma ko man ngay tënk. nga dëgg dinaa la dóor de. laay dëgg dinaa la dóor ma ne ko gën. dañu war a bëri mu ne ma waaw loolu baax yàlla def ñu bëri ñu mat suñu. ñu bëri tamit mi ci foog ne. Double Less sa def ma may jël bi. am complicité bu nekk ak ci ñun ak ñoom. ndax dama faral di wax nit. te su ma faralee di wax dara bu appuyé ko wax ne loolu dëgg la. kon nag kooku nitu dëgg la. bi ñuy toog di def réunion. Euh, benn waay ne ko yow lu tax ma nga lu mu wax rek nga ànd. mun na ma ci baat yooyu ma nga musul wax waxu caaxaan. loolu la man dama dëgg. ci loolu lañ la xam ku dëggu damay ànd ak moom rawatina Double Less dama ko topp ci feebaram. mu njëkkee hospitalisé fii Thiaroye. dem naa seeti ko dem naa këram seeti ko. li ñu def nag kenn ko wax parce que déjà loolu ñu ñoo ko seet. ñu xam nañ la. rawatina nag feebaram bu mujjee bi. bu mu ci Kër Massar bi ma ñëwee. fekk doomam bu jigéen ak benn jarbaatam mu nekk foofu. bu ma ko gis rek suma rongoon yi tuur. lu tax suma un tour de joy parce que bis Dubaï balès ni actuellement nous mu mel ak nu mu mel ak meloon la je ma yaram doon di ko ñaanal yàlla yàlla do balès ku baax la gëm yàlla la dëgg la te alal du ko boole ak kenn koo def amul xaalis dëgg la su ma la waxee du balès amul xaalis rek amul xaalis dama gis mu daa am jiitalul loolu dama dama gis mu am lu mu daa def ñu daa ànd caravane de la paix en Casamance mu ànd ak Balla Gaye 2 man mii di wax ak ak mbooloo mi ñu ànd muy wax Balla Gaye 2 bi que ñii mooy say mbokk fu ne mu dugal ci àdduna nga yaakaar ni est-ce que loolu mu daa defal ñun xale tey mën am expérience bu toll ni bu yàlla dogalee ba ñuy def caravane mu daa defal dañ a def lan ngay conseillé xale yi ci loolu. non lu may conseillé xale yi rek mu seet na la sànq ne Double Less daf doon ñëw suma kër mu wax suma jabar ne. duma lek ciép dama togal ma céré suma dawa dawal dem togal ko céré ak waas ku ci bëgg lek mu tey sa lo xam du ngeen ko lek li ma ko ko mu wax la né duma les amna cër bu ma jox amna ngeum bu ma jox deug la ba waa lamb yi boo xoolee ñëpp benn lañ jàmbaar parce que ñooy mayante xaalis comme ko Jangan-jangan na dañu am tiis mhm. waaw dañu am tiis boo xam ne xëy waaw parce que suñu waajur moo génn àdduna du dëgg waaye ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaw man xam naa li ma la ñëpp jàpp ñëpp yéen sa morom jàmm làmb la sport la mais bien sûr ñoo bokk ndey ñoo te dëgg la tamit aussi am lañu wax ñu koy jaal ko jaal tamit des ko jaal ko foofu ñëpp a ñàkk ah. dinaa la ko laaj maanaam tey ñoom ñi nga xam ne ay anciens international lañu. Mhm. muy Double Less. Mhm. Pape Diop Boston défendre couleur Sénégal. te des fois. donte amuñu problème sax mais la mel ni état est que ni mu leen war a taxaw mu ngi leen koy taxawoo loolu tey ban appel nga ciy lancer état du Sénégal. waaw mu gersu leen rek parce que dem tamit aussi initié de CRA du lu ndaw. te ñoom def nañ luñ deful. maanaam ñooñu moom wax dëgg yàlla. état bi leen di war di di di di gëstu weer bu nekk. Hmm. waaw parce que dañoo indil Sénégal loo xam ne yombul pour nit dugal ko dëkkam. Hmm. du dëgg. Hmm. waaw dañ leen gëstu di leen jàppale di leen parce que ñoo ko liggéey. Mhm. waaw di jar sotti bu baax ak artiste tamit aussi ci bépp côté. Ah. Mhm. noonu la quoi. da ngay mën suba doo mën du dëgg. Mhm. ma wax noonu quoi parce que tey moom. ay mbiram nii la. day xool su buum xool li nga gën a bëgg. mu jëlee fa te sant ko rek moo la war. du dëgg parce que yaa ñu alalu yàlla suñu borom lañ. dëgg la waaw yàlla moo ñu moom du dëgg muñ. na muñ trop. Mm-hmm. waaw na muñ. mais nag na sant tamit kon tamit aussi. Mm-hmm. waajur fekkee ne njëriñam. Mm-hmm. waaw. waaw na muñ quoi na muñ. métti na nag quoi mais muñ quoi moom góor yàlla la te jàmbaar la. te yàgg na gérer. waaw. jaajëf champion.